wa man tabia bi ihsanihim ila yawmi ddin mbokk yi ñu leen di nuyu fii ci Thiès Prestige te kilifa gi di Pape Doumbia ak njaboot yi ma àndal di liggéey yëpp di yëgle si bis boo xamante ni fàttewu leen ko ndax la ci fukki at bi ak juróom-ñeent di 19 ans ñu ci jiital ak ñaan di ko defal suñu waajur yi yi jiitu woon ak réew ñëpp di ci waxtaan ci wàllu diine ak doxalin doxalin ci wàllu àdduna eh, ay borom yi xam-xam yu mag di ci daje ñu ci saafante bis ba nag incha allahu rabbi ñu ngi koy séntu eh, le douze di dimanche ji ñu séntu fii ci gàncax ci bayal bi tim sama kër eh, ci wetu Normandie rek ñi fi bëgg a agsi wala boo ñëwee ba ci koñu morgue bi ba gisoo di gis tànt bi ñu ngi invité ñëpp euh, di ci jiital kilifa diine yi nga xamante ni ñuy suñu kilifa fu ñu mën a nekk ah di ci boolewaale tamit kilifa jàngu bi di bi ah, ñun ñëpp ñu leen di ñu leen ko yëgal di leen ci invité ci invité it ñi yàlla teg doxalinu jamono ci seen kanam tàmbalee ko ci njiital réew ba ci mboolem ñu ma jaboote ci kujj gi ba ci ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee ay jàmbur <coughs> Euh, société civile euh, mbooleem kuy déglu sama kàddu gi mooy carte bi may fekk sa kër jox la ko maa ngi ñaan ñëpp sunu borom subhanahu wa yàlla boo lu ñu defal jàmm ba ak ba ñu àgg ci bis ba di ko yëgal képp kuy déglu rek euh, jotaay bi wala suñu kàddu xamal ne yëgal nañ la ko le douze la incha allahu rabbi dañuy xëy wàcce ay kaamil ay jàng ay xasida ah, ngoon ngir kadalika kuréel yi fi ñëw ja di jàng eh, eh, ginnaaw takkusaan takkusaan rek nag ñu daal di commencé panel yi nag ay panel la <coughs> ay borom xam-xam yu mag ci réew mi jugoo ci ay barab yu fasanti ak ay jàng ay daara yu mag yu fasanti ñoo fi daje ngir waxtaane eh, li ñu bokk gëm ak li ñu bokk muy ah, réew mi ndax la nation lii l'union dans la diversité وكده في لول المهم بس بي عند تيجي دكوا يجي نيب غور جين ما نداو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حي يا خيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صلي وسلم وتقبل